Thank you. Malick boo fi génn. yaa ngi dem. maa waaw nga baal ma de. waaw. li ma nettoyé verre dafa jeex tàkk. moom da bind bon nga dem magasin ñu jox la ko. waaw waaw dafa am lu ma déggoon nga ko doon wax sa bureau di téléphone nga baal ma ci nag. waaw dafa am téléphone sa problème mu jànq. waaw waaw am naa sama jarbaat yi nekk dëkk bi yu mën a liggéey yu yaru. ñu baax. baa mën nañu liggéey. parce man tamit affaire sama jànq bi li tax ma bàyyi ko mooy mënul togg te gis nga heure bi may wàcc di dem sama kër di liggéey. li ma lay wax nii. Hmm. ah man de man maa leen yàq jàngal leen ni leen di jàngal ñoom bu ñu xëyee seen liggéey yaay dong la ñuy. waa léegi indi indi ma si kenn. waaw fi kenn bii moom dinaa dem moom. waaw dinaa ci indi kenn bu lëndee jàmm su may xëy si dinaa ànd ak moom. sa papier kër mu ngi ci moom. ba nga ko jotee nga ma ko jox xamoo sax fu mu nekk tey nga ciy doog a wax sama devoir loolu sant parce que man xam nga sama sama sang sama papa nga te man bëgguma am benn problème tama nekk fii sa wet yow xam nga ne man loo bëgg rek ci loolu laay dox. Mm-hmm. boo amee problème man problème laay man bu ma amee problème yow daal yaay xool rek naka nga koy gérer. nga gérer bu ma sax taal. d'accord. ok je vais voir incha allah ngay toog di calme dama bëgg ñuy toog waaw génn na léegi am benn problème. xam nga lu ma soxla. sama bopp baa ngi taxaw café. ah léegi indi ah. ma si kenn parce que nekk nii moom soxla naa jànq soxla naa trop. incha allah bu soobee yàlla waaw waaw d' accord léegi yow man maa ngi lay déglu. waaw ah, ba lënd incha allah waaw allah. jërëjëf jërëjëf bu ko fesee dëgg jub bi moom sàkk ma defu ma fi ma doon liggéey ma arrêté ba léegi presque deux mois yi ne liggéeyu dara taxawaayu doom comme yaa ngi ay fast food yu mel nii ak yeneen ak yeneen di jël ay jàmbur di fi teg te teg ma fi sax ma tey moom yaay nga ah? moom vraiment hmm. yaay nga moom wax na daal mais xoolal danga may may fan yii rek parce que temps yi moom euh, gestion fast food bi demeewul noonu ndax sa waa moom lay ti moom ko sama bopp. sa waay la nag. moo tax bëgguma jël risque yokk ay nit mais bu ma ko gérer régler ko ak moom rek après dinaa. waaye moom sa la moom te war nga ko jàppale bu baax ndax yow xam nga ne lu mu am yow la lu mu mën yow la kon war nga kaa gën a jàppale moom tamit. mais yow en war nga wax ci man de man daal soxla naa ko moom. yow kaay moom ñaa koy défendre bu baax de mbaadu. mbaadu. yow de ni ma mel ak yow rek laa mel ak léegi. foofu moom bu fa xalaat dara. kon baax na <laughs> te man. kon baax na ah. ma bul dem. Ah. ñu def commande ñu li ma la wax xoolal bi ci tey man déglu ma soo ma dégloo tey da ngay am jant yoo xam nga dama bëgg xaalis la mais da ñàkk toog xaar. ndax bëgguma ko ëpp da nga ëppalatu mu liggéey ak yow alors Mati may ma après naa la woo dama xam nga woote xam nga woote woo mais yow ku ma bett nga gis nga yow bu faat daganoon ma faat la yow yow barki démb Ndiaye ñëw mu fii waxtaan ak yow nii la dinaa dem ci laay waxtaan ak moom ba ma demee ci oblaay wallaay lan ma wax rus naa ci sax jaaraat yaa mun na kàcc yow lii mooy alalu àdduna ma ñëw fii nga ni ma alalu àdduna moo leen boole ndeke dara du ci doon dëgg dara dara dëgg nekku ci dëgg dinaa la wax benn mbir nag gis nga say ñàkk fayda yi man duma ci dox te duma ci wax yow ndekete Ablaye jabaram ju njëkk jë li tax mu tàqalu ko ak moom lépp yow la ndax yaa nekk ci ginnaaw yaa bon. yow yaa comprendre lu nijaay gis nga nijaay. loolu mooy sa ñàkk jom. ak sa xam ne ngay wax te réer yi dem ngay wax sa kilifa. waaw ah, baax d' que xam nga ne wax lu muy neex yépp dégg ko daal dégg-dégg dafa neex nijaay suñ lay wax da ngay fuñ lay waxee da ngay gindi bu tuuti juum. nijaay man fenn ma la li ma la wax moom moo am mais jabar si teraanga àdduna la bokk nijaay <laughs> mais loolu daal la wax. loolu mooy alalu àdduna. ndax loolu mooy alalu àdduna. ah waaw waaw nijaay. jabar bokk si alalu jabaru jàmbur mooy alalu àdduna. loolu alalu àdduna la. Oh, àdduna non waxuñu jàll bi jabar jëlee wax en tout cas teraanga. ma ne la xam nga lan la. say ñàkk fayda yooyu nga dencal ma ko laa la doxuma ci yooyu. dama dul sa morom booy këll këllee. may mun naa ay alalu àdduna ay dugg jabaru jàmm nga jaaloo ak moom nga ne ay xam nga Ablaye yare nañ ko fañ ko war a yare dëggu na dëgg gu wér xamee wuñ ko caaxaan xamee wuñ ko tappale xamee wuñ ko yu ñàkk fayda yi nga nekkee Ablaye lépp lu mu wax ak dëgg la te bu amul woon du ko wax dinaa wax benn mbir nag fii àdduna la. moom moo ñaaw njot daf ma fekk ma toog ak moom di waxtaan dañoo taxaw sax dañoo taxaw. juste dañoo taxaw xam nga lan la. dafa ma ne xam nga lan la rek. Eh? sa dof dof lu ji nga ba ko laa fii rek ma sa dof dof ji yu ñàkk a fayda yoo nga naa ay dafa ñuy xam nga lan la man dama dul sa morom laa la nekkal nit te fii àdduna la laa la de lu fi waaye leb la lu nekk dana ko fayal lu fi waaye fay gis nga yaa ngi laa jabaram. ama ko soxna ama ko doom bu soobee suñu borom dana ko fayal sa soxna mbaa sa doom. te nag yàlla na kuy njaaloo